عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك وامق تقهر صدق الله العظيم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 wasalaatu wasalaamu ala man aqa bayna almuhaajirina wal ansaar wa ala alihi al athaari wa sahaabatihi al axyaar wa ala taabiciina wa taabicihim bi ixsaanin ila yowmi ddin amma baad fa yaa ayuha nnaasu taqu llaha xaqa taqwa wa raaqibuhu muraqabata man yaclamu annahu taala yasmacu wa yara waclamu anna xayra alhadisi kitaabu llah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 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وأخرج ابن قسيمة وابن عبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الفتح فقال يا أيها الناس فإن الله تعالى قد أصاب عنكم هبية الجاهلية وفقرها يا أيها الناس رجلان مؤمن كريم تقي على الله وفاجر شقي حي على الله يا أيها الناس إنا قلحناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وروى أحمد في مسنده عن أبي نضرة أنه قال xadasani man shahida xutbata nabi sallallahu alayhi wa sallama bi minan wa huwa ala ba'irin yaqul ayuha nnaas inna rabbakum wahid wa inna abaakum wahid ala laa fadla li arabiyin ala ajami wala li aswada ala ahmara illa bi taqwa xayrukum inda allahi atqaakum wa axraja muslimun عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال laa taxaasadu wala tabaaqadu wala tadaabaru wala tanaajasu wala yabix ahadukum ala baye baad fakunu ibadallahi ixwana almuslimu aqul muslim laa yaslimuhu wala yaxzuluhu wala yaxqiru attaqwa haahuna attaqwa haahuna wa ashaara sallallahu alayhi wa sallam ila sadri kullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa maaluhu wa irduhu bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahqira aqaahu al-muslim haadha wa qad qaala ta'aala wa laqad khalaqna al-insaana wa na'lamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wariid iz yatalaqqaa al-mutalaqiyaani ani al-yamiini wa ani ash-shimaali qa'iid maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid wa jaat sakaratul mawti bil haq zalika ma kunta minhu tahid wa nufiqa fi suuri zalika yawmul waid wa jaat kullu nafsin maaha saiqun wa shahid laqad kunta fi qaflatin min hadha fakashafna anka qitaaka fa basaruka alyawma hadid wa qad alimta ya insan wa kulluna zalika al insan anna nnaasa yawma alqiyamati sinfan صنف مقرب مسان وآخر مبعد مهان صنف جمعت لهم الرقائب والآمال وجعلت لهم الأرائك والكلال والأسرة والهجال وصنف أعدت لهم السلاسل والأخلال والأراقم والسلال ودروب الأحوال والأنكال ولم تدري من أي صنفين أنت ولا في أي الفريقين كنت wa axraja albuxaariyu an ali ibn abi taalibin karama allahu taala wajhu rafa annahu qaal inna aqwafa ma aqaafu alaykum itibaaru alhawa wa tuulu alamali fa ama itibaaru alhawa fa yasudu an ilxaqi wa ama tuulu alamali fa yunasi alaxira alaa fa inna dunya qad irtahalat mudbira wa inna alaxirata qad irtahalat muqbila wa likulli waxidatin minhuma banuun fa kunu min abnaai l axirati wala takunu min abnaai dunya fa inna al yawma amalun wala xisaab wa qadan xisaabun wala amal alhamdulillahi allazi amarana bi taqwa wa ibtiqaai l wasila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 لا زالت إلى العلا راخية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واغزل من قزل المسلمين اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وزراريهم قنيمة للمسلمين واكتب بالسلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وقلاء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 قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنس إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت ذكري سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي bal tuusiruuna alxayaata addunya walaaxiratu xayrun wa abqaa inna haadaa la fi suufi luulee suufi ibrahima wa muusee allahu akbar sami'a allahu liman hamidah الله أكبر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

asalaamualeykum Thank you. faatiya fàllax ak naas yi ak ñetti salaatul faatiya faatiya ñetti salaatul faatiya nga xam yàlla ko sëriñ bi ñaanal ko yàlla yàlla nga xam ne moo am jàmm mu may ko jàmm may ñu ko gannaaw loolu itam ñu ñaanal ko ba nga xam ne lii nga xam ne moom la mébét ci pays bii yàlla dimbale ko may ko wér ak wér le ak talag dal ba mu mën koo àggali ba ëllëg si biir su lajee ak bay mbay du sëkk nañ ko defal faatiya ay ñetti salaat faatiya ñaanal ko yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def yal na ko yàlla nangu ci barke yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmad Tidiane barke Baye ak Baye Mbaye barke maam El Hadj Abdoulaye barke Cheikh Ibrahima yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla nangu yal nañ fekk déwén yu bëri te tal ko ànd ak wér ak wér la bu ñu dara dal lu may jàmm feebar bi yal na ko fi yàlla jëlee. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, ñu ngi nuyu mbooleem ñi ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan. di leen laaxi biir ci nañ jël masir de euh, barrières yi pour feebar bi nañu takk masque yi di moytu yu bari ndax feebar baaxul te tasaaroo bu tasaaroo baaxul borom bés bi dafa bëggoon set ku bëggoon set la moo tax ba Cheikh Serigne Baye neex naa wax mooy ki nga xam ne mooy kenn ci taalibe Cheikh Ibrahim bi nga xam ne moom la yàlla may muy bopp taalibe yi te Baye moo ko waxal boppam yàlla may na ko mu nekk di jullit nekk di tiijaan bu jariñu ba mu nekkee jullit muy jullit bu baax baax ci ñëpp bëggal ñëpp lim bëggal boppam defar ñu bëri dimbale ñu bëri mu koo xam ne jariñ na ju bëri ci Cheikh Ibrahim ànd ak Cheikh ànd gu sell ba Cheikh Ibrahim seedeel ko gannaaw bu mu ko tëralee ne ko ne ni meloon bi muy ndaw noonu la mel bi muy mag wàllu yàlla bu mag boo xam ne képp ko xam ne xam nga wilaaya rek boo ko gisee da nga gis ne kii wàllu yàlla la mooy ki nga xam ne jariñ na ñu bëri ci Cheikh Ibrahim ndax ku jariñu ci Cheikh Ibrahim rek ci moom la jaar ni nga xamee ne ku jariñu ci Sénégal wala ci fii rek ci Cheikh Ibrahim am na lu mu def ci yow mu bàyyi fi pays bii nga xam ne bàyyi moo ko fi samp gàmm fi ay yoon samp ko fi samp fi ñëw rël ko jàkka tuddee ko doom ma ba pare nag sampal ko xalifa bi nga xam ne kenn kenn wuutewul ne xalifa bu man la mooy kenn koo xam ne yàlla dimbale na ko moo njëkk a firi alquran ci sëriñ Maam Alaaji Abdoulaye gannaaw gannaaw bàyyi loolu tawfiq la yàlla dimbale ko mu rëdd jumaa ñaari jumaa moo fi ak jumaa ju njëkk ja bàyyi moo ko rëddoon ci ci ànd ak Cheikh Sëriñ Bay rëdd ko jumaa ju mujj ji itam moom itam Cheikh Ibrahim moo ko rëdd ànd ak Baay yëpp kon la démb mooy tey ña ña àndoon démb ñoo ànd ba tey Cheikh Serigne Mbaye daal boo ko bëggee xam mooy baay ndax lu la lu la réer ci baay rek boo xoolee ci Cheikh Serigne Mbaye da nga ko gis waaye nag dafa sànni loolu yëpp ak mbokk yeeg yëpp jëndee jël taalibe gi jariñ moo tax mu jariñ ñu jariñee képp ku ànd ak moom rek gis nga ne am nga njariñ yal na yàlla dimbali ñun ñëpp yal na yàlla wattu leen bii baay moo ko mayoon ebal mag ñi ñu ñëw ñëw siyaare nañ ci kanam kanam Cheikh Sëriñ Bay ay yoon ba ba bi nga xamee ne génn làqu na itam mag ñi di ñëw di fekkee siyaare bi ba bis tey bii kon nag li doon démb mooy tey sëriñ bi bàyyi ko fi teg ku ànd ak moom bàyyi nga àndat ku ko woon gannaaw bàyyi nga woon gannaaw yàlla nañu yàlla dimbale ñun ñëw salaamaaleykum. alhamdulilah comme ni ngeen ko gisee nii tey ñu ngi si dëkk bii nga xamante ni moom lañuy ñu wooyee Hurma Jabel ñu ñëw seet si fi sëriñ bi nga xamante ni moo fi nekk di Alaaji Barham Niass ku ko wax rek nga xam ni borom xam-xam la nga xam ni ku bëgg Mawlana Cheikh al Islam la Alaaji Barham Niass Baye lii baayam daan doxalee ba jóge fi moom lay doxalee it jamono ji di ko ñaanal yàlla gudd fon wër gu yaram tey siir tey mu nekk ziaram bi nga xamante ni ay taalibeem ay soppeem ay xaritam ay mbokkam ñoo ko koy defaral chaque année loolu moo tax ñu jógee fee sa pays ba nekk bi Médinatoul Cheikh Ibrahima Niass ñëw andi fi incha allah rabbi lépp lu fi xibaar rek seen xarit mu nekk Sall Baye Barxaama dina leen ko wane dina leen ko jox yéen it nga nga xamante ni yéen a koy seetaan ñaane leen ko yàlla ndaxte ndaw bu bëgg bàyyi ñis la ndaw bu bëgg xadara bi la gis ngeen Kër Madiabel ay kilomètre kilomètre la waaye tax na dëgg na yitte yëpp ñëw taxaw lépp luy xibaar lépp luy information rek mu yónnee ko jullit ñi rawatina taalibe Cheikh Ibrahima Niass yi